Luk saar juróom benn bis Yeesu taxaw ca tefesu dexu Senesaret mbooloo ma wër ko di buuxante ngir déglu kàddu yàlla noonu mu gis ñaari gaal yu teer ca tefes ga nappkat ya ca wàcce di raxas seeni mbaal mu dugg ci genn gaal fekk muy gu Simon mu ne ko mu joow ba sori tuuti noonu yeesu toog ca gaal ga di jàngal mbooloo ma bi mu jàngalee ba noppi mu ne simon joowal gaal gi ba fa ndox ma gën a xóote ngeen sànni fa seeni mbaal ngir napp simon tontu ko ne kilifa gi coono lanu fanaane biig te jàppunu dara waaye nag dinaa ko sànni ci sa ndigal naka lañu sànni mbaal yi jàpp jën yu bari ba mbaal yey tàmbalee xët noonu ñu daldi liyaar seeni àndandoo yi nekk ca geneen gaal ga ngir ñu ñëw dimbali leen ñooñu agsi ñu feesal ñaari gaal yi ba ñuy bëgg a suux naka la Simon Pierre gis loolu daldi sukk ci kanamu yéesu ne ko sori ma borom bi ndaxte nitu bàkkaar laa wax na loolu nag ndax jën yu bari ya ñu mbaaloon daf koo jaaxal moom ak ña mu àndaloon ak ña mu bokkaloon liggéey ba maanaam ñaari doomi sebede yi di saak ak yowaana yeesu ne simoŋ bul ragal dara gannaaw si tey ay nit ngay mbaal jëme ci man noonu ñu teer ca tefes ga bàyyi lépp di topp ci moom ni yéesu nekke woon ci ab dëkk am fa ku gaana ba daj bi mu gisee yéesu mu daldi dëpp jéem ci suuf ñaan ko sang bi soo ko bëggee mën nga ma wéral yéesu tàllal loxoom laal ko naan bëgg naa ko wéral ca sa ngaanam daldi deñ yéesu sant ko ne bu ko wax kenn waaye demal woon sa bopp saraxalekat bi te nga jébbal yàlla sarax si yoonu musaa santaane ngir ñu xam ni wér nga te mu nekk seede ci ñoom noonu turu yéesu di gën siiw mbooloo mu bari di ñëw ci moom ngir déglu ko te mu faj seeni jàngoro waaye yeesu moom di beddeeku ci barab yu wéet ya di ñaan am na bis yeesu doon jàngale amoon na ca mbooloo ma ñu bokkoon ca farisiyen ya ak ay xutbakat yu jóge ca dëkk yépp ya ca galile ak ya ca yude ak yerusalem yéesu àndoon na ak dooley borom bi ba muy faj ay jarag noonu ay nit ñëw jàppa basan gañu tëral nit ku yaram wépp làggi ñu di ko wuta dugal ca kër ga ngir indi ko ca yéesu waaye gisuñu fu ñu koy awale ndax mbooloo ma ñi daldi yéeg ca kaw kër ga nag xeddi tiwil ya yoor waaje ak basan ga wàcce ko ci kanama yeesu ca biir mbooloo ma bi yéesu gisee seen ngëm mu ne làggi ba sama waay baal nañu la say bàkkaar xutbakat yi ak farisiyen yi di werante ci seen xel naan kii mooy kan bay sosal yàlla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 jógal jël sa te nga ñibbi nit ka jóg ca saasa ci kanamu ñépp jël basaŋ gañu ko tëraloon ñibbi tey màggal yàlla mbooloo mépp waaru di màggal yàlla ñu ragal tey wax naan gis nañu tey ay mbir yu ëpp xel ginnaaw loolu yeesu génn gis ab juutikat bu tudd lewi mu toog ca juuti ba mu ne ko kaay topp ci man lewi jóg bàyyi lépp daldi ko topp noonu lewi togglu ay ñam yu bari ci këram ngir teral yéesu juutikat yu bari ak yeneen gan ñu nga fa woon di lekkandoo ak ñoom farisiyen yi ak seeni xutbakat di xultu taalibe yéesu yi ni leen lu tax ngeen di lekkandoo ak di naandandoo ak ay juutikat ak ay boroom bàkkaar yeesu tontu ne ñi wér soxla wu ñu fajkat ñi di ñoo ko soxla ñëwuma ngir woo ñi jub waaye ngir woo bàkkaarkat yi ñu tuub seeni bàkkaar noonu ñu ne yéesu taalibe yaxe yi ak yu farisiyen yi dinañu faral di woor ak di ñaan ci yàlla waaye say taalibe ñu ngiy lekk ak di naan yeesu ne leen ndax mën ngeena a woorloo gan yu ñëw ci céet li feek boroom céet gaa ngi ànd ak ñoom waaye bis yaa ngi ñëw yu ñu jële borom céet gi ci seen biir bés yooyu nag dinañu woor te it yeesu wax leen kenn du jël mbubb mu bees xotti ci sekit daaxe ko mbubb mu màggat lu ko mooy dina xotti mbubb mu bees mi te sekkiit wi mu ci jële du ànd ak mbubb mu màggat mi te kenn def biiñ bu bees ci mbuusi der yu màggat lu ko moy biiñ bu bees bi day toj mbuus yi biiñ bi tuuru mbuus yi yàqu waaye dañoo wara def biiñ bu bees ci mbuus yu bees ku naan biiñ bu màggat du bëgg bu bees bi ndax day wax ne bu màggat bi baax na